benn yoon lañ koy am du mu baamuwaat moo tax suñu borom tabaraka ko taala digle ñuy gaawantu di jëm ci lu baax balaa dund bee jeex borom bi ne wasaari'u ila maghfira gaaw leen jëm ci luy tax ngeen am njëggaluk seen boroom njëggal goog nga xam ne mooy tax ngeen am aljana ji nga xam ne yaatuwaayam toll na ne asamaan ak suuf suñu borom mi ngi ko dal ñi ragal yalla borom bi del wax ne gawantu len jëm ci luy tax ngeen amuk njéggal gu bayiko ci seen borom ak aljana jo xamne tol na ne yaatuwaayam asaman ak suuf suñu borom ñi ngi ko wajalal ñi gëm yalla ak yonentam mu ne lol nak ngeeneelul suñu borom la mo koy jox ku ko soob yàlla borom ngeeneel lu magali li bi alayhi ne de gaawtu di jariñoo juróom bala juróom yi koy wuutoo ñëw ba ca jëkk mooy su ngeen nekkee ci ndaw am katan na ngeen jariñoo kattan googu ci sàkku xam-xam waaye ci liggéey lu ngeen mën a terloo bu ngeen ameeg wér na ngeen jariñoo wér googu ci jaamu yàlla ak lu lew bala tawata ñëw bu len yalla dénkee dara ci wërseuk na ngeen ca góorgóorlu def ca lu bax faggu ca aw yiwu bala ak ñaka ñew mu ne su ngeen amee jot soxla yi yoro go ay responsabilité yu bari waxtu woowa nang ko jariño ci sakku xam-xam nang ko jariño itam ci sakku lu lew lo xamne bis bo deme ba soxla ya bari fekk na wajalon nga ko mu ne nag soo di dund itam nag na nga jariñoo dund bi balaa dee ñëw mbokki julit yi ñu xam ne weeru koor jamono la joo xam ne ju ñu war a góor la ci def ci lu baax ndax tereetu yiw la tereetu barke la boo xam ne yoon rek lay am ci at kon nañu fexe ba dara ci ay waxtoom bañ noo rëcc lu ne def nañ ca lu baax dundal ay waxtoom ci topp yàlla ak ragal yàlla boroom bi nee na lépp lu ngeen def ci lu baax suñu boroom xam na ko mu ne na ngeen wut yóbbal yóbbal bi gën ci yóbbal yi nag mooy ragal yàlla war na ci ab julit mu roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci weeru koor yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma mi ngi nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mo gënoon a tabe ñëpp waaye nee tab ga daana gëna fess ci wéru koor bu jibril di ñew di ak mom di and ak mom di durus alquran mu ne lolu guddi gu nek la dara am la jibril daan ñew di durus ak mom alquran mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mo daan gëna tabe ci aw yiw ci gelaw lo xamne dafa riddi yow mbokum julit mi Naga nga xamne buntu yiñ mëna wuté wute lu baax man ci gaawantu am aw yiw ci wéru koor bari na lool la ci jitu qiyam ramadan muy naafila yi ñuy def ci guddik ramadan julli guddii dafa bokk ci melokaani yiw yu mag yi nga xamne yool yu mag mo ci am bokk ci melokaani yi nga xamne am nañu ragal yalla suñu borom tabaaraku taala ragal yalla gogu motax mu faratal koor ne la allakum tattaquun gannaaw naa fi la nag guddi bokk na ci liy tax a amuk ragal yàlla kon nit ki war na cee gën a farlu bu nekkee ci biir weeru koor koor ak gud julli gi ñuy julli ci guddi gi dañoo lënkaloo ndax weer wi la borom bi tabaaraka taala wax te weer ay bis la te bis guddi ak bëccëg la day mel ne kon bu ñu wooree bëccëg yi guddi yi ñoom lay seen wàll ca koor ga mooy taxawaay ya ñuy taxaw ak julli yañ cay julli julli ci weeru koor muy nawaafil yooyu dafa bokk ci màndarga yu mag yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sunnaal na ko ci ay waxam sunnaal ko ci ay jëfam xemmeem loo ko jullit ñi abi horera radiallahu anhu mi ngi nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa neena na koo xam ne weeru koor yaa ngi taxaw guddi di naafil la te ngëm yàlla rek lal loole ngay def ak sakku tuyaaba suñ boroom dana ko jéggal li jiitu woon ci bakkaaram ñaareel bala ci luñ mën a fàggoo aw yiw ci weeru koor mooy jàng alquran borom baa wax ne ñi nga xam dañuy jàng yàlla bi di taxawal julli di joxe ci li ma leen ñooñu day ñi ngi yaakaar yaxantu muy commerce goo xam ne du lamb ndax suñu borom tabaraka wa taala moo koy jënd nga gis ne kon gannaaw weeru koor yaa ngi naafil la yaa ngi joxe lu mu néew néew ci la nga am nga mottalee ko nag di jàng alquran ndax nga mën a motal ñett yooyu borom bi tabaraka wa taala wax ne ñi koy def seen yaxantu du lamb yàlla moo koy jënd yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne dee leen jàng alquran ndax alquran kat yowmal xiyaam day ñew di ram di tinu ñi nga xamne ñoko daan jang yonnate bi alayhi salatu wassalam del wax ne ku jang wax araf ci tereb yalla bi araf wowe suñu borom dana ko ci bindal tuyaba te tuyaba benn bu nekk nag dañ koy ful ba mat fukk ñetteel ba ci yi nga xam ne danañ ko fàggoo aw yiw ci biir weeru koor mooy di dogal ku woor ndax joxe ñam ak dogal ku woor dafa bokk ci sabab yi nga xam ne dana tax nit ki ñu jéggal koy bakkaaram dana tax itam ñu goreel ko ci safara dana tax itam ñu fulal ko ay yoolam dana tax mu bokk ci ñi nga xam ne ñooy teew ca déggu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dégg boobee nga xam ne ku ca naan duutu mar ñu ñaan suñu boroom tabaraka wa taala mu boole ñu ci cay teew yonente bi alayhi salaatu wasalaam dellu wax ne ku dogal ku wor donte xaritu tàndarma nga ko jox neena da nga am ci ak pay lu toll ne lamu am ca koor ga te loolu du wàññi ci ak payam dara nga gis ne jagle googu ci koor rek la am nga mën am jaamu yàlla gu keneen def lu toll ne lamu mu ca am te du ci payam dara kon loolu kenn ku nekk war ngaa góorgóorlu ba def ca dara bul ca xeeb dara donte tàndarma la war a sax joxe ñam dafa bok ci sabab yi nga xamne dana tax dug al aljanna te jàppandi na lol nak ci wéru koor wéru koor bi nga xamne ndax borom baagi wax ne joxe ñam aw itaamun fi yawmin min si masqaba joxe ñam mi ngi gëne ci fañ ko gëna soxla nga xamne jamono yi xiif la te yi koor nit ñi yendo wor yendo ab xif am ño xamne daanaka bu ñu ñu yendo won ci xif ba bootul moom la ñuy wéyee wala la ñuy dogee daanaka du leen fegal ab xiif kon nag foofu occasion la bu rëy boo xam ne ku bëgg a fàggu aw yiw mën nga ko caa fàggu ñeenteel ba ci yi nga xam ne danañ ko wute aw yiw ci biir weeru koor mooy nag di sarxe sarax moom li ci ñëw ci alquran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ay ngëneelam bari na lool mom rek la borom bi tabaraka wa taala tudd ne ku koy def dang koy lebal xam nga ki nga xamné mom dalay may dila baxé kon koku boko lebalé taxul ñuy wax te mo wax ne man zal la si yuqridullaha qardan hasana ana kan moy lebal yàlla bor bu rafet te moy la ngay joxe doon lu bax lu am jariñ nang koy joxe itam sel dara ci ñistal bañ ca nek mu ne fa yudaa'ifahu lahu wa lahu ajrun karim ci benen aya fa yudaa'ifahu lahu ad'afan kaseera wallahu yaqbidu wa yabsut neena dana ko ko fulal ful yu bari ndax yalla kat ku ko jox mu jël waye ku talalit mu jox la te loko jox bu la koy wat moy gën fuuf moy ëpp fuuf la nga xamne yow mom nga joxe won te lolu ku ko set ci mbay dang ko mën xam la nga ci bu njay mbay ma ñoree la ngay jotat sore na lol ëpp na lol la nga xamne mom nga ji won te mom la borom bi tabaraku taala nurole ak jëf ju baax jëlé ci abi xoreyra radiyallahu anhu yonentibi sallallahu salallahu alayhi wa alihi wasallam ne ku sarxé lu toll ne doomu tandarma te nak nga fagu ko fagu wiin wu lew fofu nga ko jëlé te néna nak suñu borom du nangul lu lu teey néna suñu borom da koy nangu ci mday joram néna diko yokal borom diko yokal borom ba mujj toll ne montagne saxna ci hadithu abi xoreyra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne amul benn bis boo xam ne jaam ñi danañu xëy lu dul ne ñaari malaayika danañu wàcc kenn ki di wax ne yàlla yàlla na nga jox kiy joxe lu wuutu la mu joxe lu gën la mu joxe keneen ka wax ne yàlla yàlla na xañ ki nga xam ne day téye la mu am yàlla na nga ko teg loo xam ne day sànq la mu am juróomeel ba ci yi nga xam ne danañ ko sàkkoo aw yiw ci weer wi mooy nag jëpp jëf joo xam ne jëf ju baax la lawatina liggéey boo xam ne danga cey cay fàggulu lew liggéey ak jaamu yàlla dañoo lënkaloo ndax jaamu yàlla moo tax ñu ne fi waaye liggéey nag mooy tax ñu man fee ne ndax li ñu fiy soxla ci ay aajo loolu liggéey koy faj su aajo jooju fajoo rek ci ngay doog a mën a def li la fi indi muy ak jaamu yàlla moo tax benn waru ci gàllankoor morom ma kenn warul ne day liggéey ba sàggane jaamu yàlla waye waaye kenn warul ne itam dafa nek ci jaamu yalla ba talu la liggey waye ñom ñaar ñoy and motax aw koor nekul aw lay ci lo xamne nit ki da koy laye ci yaccaral ak tayel ak bayiku ak sagane ab liggeyam comme niko ñu bari di gisse waye koor kay dafa warona yok yokk la nga xamne mom lañuy liggey ndax waxtu yaatu wi ñi am ba taxna lolu dafa wara yok bu baax waye warta wàññiku suñu borom mo ne fa iza faraghta fansab soo noppeetee ci jaamu yàlla demal nga sonni wa ila rabbika farghab so nekkee fa ngay sonne di liggéey sa sa xemmemteef bépp ak sa xalaat yépit na nekkaat ci sa borom tabaraka wa taala waxtu jaamu yàlla jotaat ba nga dellu ci juróom benneel ba ci yi nga xam ne danañ ko sàkkoo aw yiw ci weeru koor mooy nag di teewee jotaay yi xam-xam yi jotaay yi nga xam ne dañ fay jàngale xam-xam wala ñu fay moo xam dañ fay leeral téere borom bi tabaraka taala wala ñu fay def ay waxtaani diine wala ñu fay joxe ay dars loolu itam nit ki war nañ koy profito ci weeru koor di ko teewe uqbat ibnu amir mi ngi nettali ne benn bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na fekk ñu ci jàkka ji ne mu ne kan ci yéen moo bëgg bu xëyee dem fii ci gannaaw kër gi fekk fa ñaari gëléem yu mag su ko defee mu jël ko yóbbu te du ca am benn bakkaar du ca tooñ kenn itam ñu ne ko ah ñun ñëpp day bëgg nañ lu mel noonu mu ne moona day kenn ci yéen xëyoon dem ca jàkka ja jàng fa ñaari aay ci téere borom bi tabaraka wa taala moo gën ñaari gëléem yu mag yooyu nga xam ne moom la fekk yóbbu ko bu ma tee ñett aaya moo gën ñetti gëléem ya mën a toll ci ay lim ci aaya ya rek noonu la gënee gëléem ya ma ne kon day wax ne wut xam-xam rawatina téere borom bi tabaraka wa taala la nga cay amee moo gën fuuf nit ñi alal ndax alal mom, jamono bu nekk nit ñaa ngi ko kenn du dem ba toog ba ne man doyal naa wutatuma waaye bu dee xam-xam nag moom daanaka dañuy teel a bàyyi rek daal am ñuñ ko féetale ne xanaa kay ñun ñu di leen laaj wala yéen yéenay njiit yi wala yéenay borom xam-xam yi waaye daal cee gàttañ lu lool te moo ne day am xam-xam moo gën a yomb amub dërëm ndax xam-xam ba man nga caa bañ a dara man nga toog sax sa biir néeg jang ab aaya mokal ko do génn do dem fenn te dërëm boobu moom mënoo ko amul te génnoo bokk na ci yi ñuy wute aw yiwitam itam nak ak bokk jamono bu nekk la war waaye rawatina ci biir weeru koor jokk ak bokk jokk ay dëkkandoo jokk mboolem say mbokki julit borom bi na wa aati sal qurba xaqahu wal miskina wa bna sabil nee na sa mbokkum jege ñaale jox ko aqam dafa am aq ci yow yàlla mi leen boole tax na kenn ku nekk am na lu mu ko sidd ca kasa des kenn ku nekk nak ko jox aq ja nag du alal rek waaye aq ja bokk na ci ak yëg bokk na ci ak fonkeel bokk na ci ak nawlonte bokk na ca di siyaarante loolu mbokk mu nekk da ko am ci mbokkam bu ñu seet ñàkk a ci ay at wala ñàkk a tollooye ci man-man wala ñàkk a tolloo ci am-am loolu du jeexital ci bokk googu ndax yooyu yépp moom andaale wuñ ko fi te duñ ko yóbbaale borom bi tabaraka taala denkaane ak bokk ne wattaqullaha allasi tasaaluna bihi wal arham na ngeen ragal yàlla mi nga xam ne lu ngeen di laaj te bëgg ca gaaw a jot da nga naan jox ma ko ci turu yàlla jox ma ko ngir yàlla defal ma nangam ngir yàlla mu ne kon nag na ngeen ragal yàlla waaye bokk yi nga xam ne itam moo leen ko boole kenn lijjantiwul koo bokkal da nga xammi rek gis ne kii moom nga bokkal loolu jëfi suñu borom la tabaraka taala te borom bi ne nag ne inna allaha kaana alaykum raqiba yàllaa ngi leen di fuglu ci lépp loo xam ne lu mu leen digal la ba xam yéen a ngi koy def na ngeen ko war a defeem dem yàlla nu borom bi tabaraka wa taala defal tawfiq ñu mën a koor koor gu dëppoog sunna yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam te mu nangul nu ko te fulal nu ko te musal nu ci lépp loo xam ne luy gàllankoor la luy sànq sunu waxtu ci biir koor la bañ mën a jariñoo waxtu yi ci koor gi yépp wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain